aleykum mbooloo mi balaa may wax ci bésu tey bi dama leen di indil message président Ousmane Sonko mu ngi seetaan en direct lépp li xew fii waaye nag xolam neexul te war ngeen xam lu tax nena dafa bëgg képp ko xamné amna lu tuuti loko duggal sa xol nga la waay leader bu taxaw fi na nga ko tàcc te bu ko yuuxu kan ngeen di topp kan ngeen di topp kon def leen limu wax ndax moy rafetal mbokk yi c'est un prisonnier errant qui vous parle aujourd'hui ndax xam ngeen ne Macky Sall dafa décidé ne kenn du wax déet ci mim réew moo tax mu jàpp lu ma 364 détenus politiques ñii mu tëj leen ñii mu isolé leen ñii mu dóor leen contrôle judiciaire ñenn ñi mu delloo leen ci buumu jaam ñu mel ni man ngeen gis ko nii waaye lu metti yagul ndax biñu sumbu xex bi xamoon na ne suñu bakkan man nañ ko ci ñak donc tej kaso du ci dara encore une fois na ñepp pare bu mané na tabax ay kasoy kasoy kaso jërëjëf leneen li nga xamné bëgg na ci daniel moy mbokk yi kenn modul bok ndax warul bok, manul bok, te du bok mi président Macky Sall waye ñepp ñi fi dess dinañu bok ndax sénégalais yi ñoo war a tànnal seen bopp ki leen di jiite président so Macky Sall mënu leen ko tànnal maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf lu kilifa ñu jox

asalaamaaleykum mbokkub Sénégal gis nga gis nga sama prise de parole ñëwagul wante yéen ñi nekk fii taxaw je sais que ay patriotes yu mag ngeen est-ce ay patriotes ngeen est-ce que ay patriotes ngeen. bëgg a jox Nous nga ñu ngeen et cela ne nous impressionne même pas nous n'est c'est pas comme ça que vous devez vous comporter parce que l'ISA ne sert absolument à rien du tout vous ne servez pas votre leader vous ne servez pas votre parti et vous perdez beaucoup d'énergie ma ne su fekkee dañu bëgg Macky Sall joggé fi du nii lañ koy défé du nii lañ koy défé su ngeen bëggee Macky Sall joggé fi c'est pas comme ça qu'on va réussir à le faire ce que vous faites n'impressionne personne dañuy booloo dañuy ànd dañuy juboo dañuy déggoo pour atteindre suñu objectif pour que Macky Sall bañ doon candidat en 2024 mais du lii mais ça ne donnera aucun résultat. Et cela ne m'impressionne guère. dama wax ne li fi indi félicité F24 li def nous sommes très heureux et nous sommes très fiers العالم Makin parah waaw mais na ko rek respecté. waaw mais jumte moo doon ñàkk ñëpp ñëpp mais ñëpp da nga koy réglé mu nite. mais ma defar balaa ñu maa bokk. Allez